dal ci xunt yi ak ci kàmb yi nit ñooñu ñépp seen ngëm a tax ba yàlla seedee loon leen lu baax moona dey jotuñu li yàlla dige woon ndaxte yàlla dafa tëral lu gën ci nun te bëggu leen yeggale ci mat fii ak ànduñu ci ak nun